ca dëgg di seetaan Feeling Dakar TV li gën euh, bu ñu jagleel ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ay euh, élèves fële ci IAU Rufisque euh, jëmale ci li nga xam ne nag mooy promouvoir wàllum góor jigéen dinañ ko yaatal yaatal tamit kàddu yi nga xam ne jot nañ ko jëlee ci nguur gi di xamleel raison yi nga xam ne moo tax ñu daloo avion bu bees bi nga xam ne boobu ba léegi mu ngi lëmbee réew mi wax nag ci marché Sandaga bu ñuy waajal li nga xam ne nag mooy mooy travaux yi ginnaaw bi ñu sukkandikoo ci maire Dakar Plateau di Alioune Ndoye dem fële ci Louga nag indi kawteef bu ñu nemmeeku si ñaari sulaar bu ñu laalante ba kenn am si ay gaañu gaañu yu métti wax tamit ci li nga xam ne nag mooy trafic de bois bu ñu nemmeeku démb fële ci euh, Casamance ñu indi leen point Covid 19 bés bi tëjee flash bi tàggat yaram ngeen taaxirlu ma faram fàcceel leen li gën a fës si yéenekaay yi. del déglu del xool Feeling Dakar information yu leer salaamaaleykum internetu Feeling Dakar comme nu ma ko waxee ci jëlbeetu xibaar yi dañuy taxaw nag ci wàllum góor jigéen bi nga xam ne moo ngi lëmbee réew mi boobu ba léegi ginnaaw bi ñu gisee woon nag dimanche bi ñu génn fële ci place de la nation ñi nga xam ne nag ñooy mouvement bi di ànd sàmb jikko yi te kii di Ababacar Mbóot boo jiite woon ko ñu gis ne nag ay naataango mu ñu miski ci mel ni dàmbo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Jamra ak ñi nga xam ne tamit ay imam lañu ñoom nag gisoon nañu ñaawteef bi nga xam ne ñoo ko goog sàkku pour ñu criminaliser li nga xam ne nag mooy wàllum góor jigéen booba léegi nag yëf yi jur coow fii ci réew mi ak ci bitim réew ba ñi nga xam ne nag ñoom ñooy borom ñaari tur yi faree fële ci euh, Paris génnee ab lettre di sàkku de euh, ñi nga xam ne nag ñoom ñooy euh, dàq li nga xam ne mooy wàllum góor jigéen fii ci réew mi ak yenn si suñu kilifa diine yi ñu déclaré personne non grata maanaam ñi nga xam ne soxlawul leen ñu dugg fi nga xam ne mooy réewum Europe ba tax na rek jamono yi ñuy wax ak yéen nii nag yëf yee ngi lëmb bi naaw nag bu ñu nemmeekoo fële ci iyaaw Rufisque que ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci ab classe terminale def L ñoom ñoo ko def nag ab examen blanc ci noonee nag ñu gis li nga xam ne nag mooy euh, seen sujet anglais bi nga xam ne day si ŋàññ euh, taxawaay ñi nga xam ne nag ñoo fare fii ci réew mi di xeex lépp lu dem ci wàllum góor jigéen ba na rek suñu sukkandikoo ci professeur Abdoulaye Diédhiou nekk professeur anglais fële ci lycée Maurice Delafosse bu Ndakaaru moom nag moo ngi génnee li nga xam ne nag mooy boobule euh, sujet di xamle rek ñi nga xam ne ñooy moroomu jàngale jàngalekatam yi ñu jug ko ne temm euh, jàkkaarloo ak ñi nga xam ne nag ñoom ñooy promouvoir wàllum góor jigéen fii ci réew mi di fàttali rek li nga xam ne nag mooy boobule coow euh, ci coowlum góor jigéen yi kii di Dame nag euh, mujj naa def ab déclaration jëmale ca ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ay naataangoom war rawati nag ñi nga xam ne ñoo faree fële ci yaawu Rufisque coowlu góor jigéen bi moo ngi boobu ba léegi nag di lëmbee li nga xam ne mooy réew mi internet Feeling Dakar lii la ñu woon démb fële fi nga xam ne nag mooy yaawu Rufisque ginnaaw nag bu ñuy xeex wàllum góor jigéen ñu gis ab sujet boo xam ne day euh, ŋàññ euh, taxawaay bi nga xam ne ñenn ñi am nañ ko fii di xeex ak ak yeleef yi nga xam ne ñoom la ñu war a samp ba tax na rek ñoom nag ñoo ngi ŋàññ ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy euh, dàq li nga xam ne mooy wàllum góor jigéen fii ci réew mi ñu wax ba tey rek ci li nga xam ne nag mu ngi indi ay coow ci diggante ñi nga xam ne nag ñoo faree ci gujjëg politique bi ak ci nguur gi ginnaaw bu ñu gisee alternance bi passé ñii di état wu Sénégal dalloo ab roppalaan bu bees buy toll ci koppar juróom benn fukk milliards jàpp ñaar fukk milliards ba léegi sax coow li ngi euh, pëdd bi wureegul euh, ñi nga xam ne nag ñoo faree ci guddeeg politique bi ginnaaw bañ ci nemmeeku woon nag ki nga xam ne mooy Abdoul Mbaye euh, Cheikh Bamba Dièye ku ci nag di Ousmane Sonko yëkkati woon ay kàddu jëmale ci boobu lay roppalaan ba tax na rek ñi nga xam ne nag jamono yi ñuy wax ak yéen ñoom ñoo ŋàgg li nga xam ne mooy porte parole gouvernement bi ak ñi nga xam ne nag ñoo faree ci force des armées ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yoroo kàddu gi génn nañu di xamleel raison yi nga xam ne moo taxoon ñu jënd boobule avion ñuy ñuy jox tax nataal atum 2007 ki nga xam ne nag moo fi nekkoon njiitu réew Abdoulaye Wade euh, tuut moo desoon mu faatu ci benn accident bi nga xam ne benn incident bu ñu nemmeeku woon si Espagne ba tax na rek ñoom nag dañu gis ne jafe-jafe yu euh, Pointe des amoon moo tax nag ñu jël décision bi ni mel euh, pour changer li nga xam ne nag mooy boobu boobule avion ba tax na rek ñoom nag dañu ne li nga xam ne moom la wax boobu léegi yi maanaam dañuy dund ci li nga xam ne mooy alalu réew mi kàddu yooyu nag la ñi nga xam ne ñoo fare ci nguur gi yëkkati ginnaaw nag bu ñu déggee ñu ne seen bakkan ak seen euh, tolluwaay rek la ñuy euh, wëyee pour jënd li nga xam ne mooy boobu la roppalaan ñu dem nag wax ci li nga xam ne nag moo dem ci wàllum euh, travaux yi ñu war a tàmbali fële ci marché bu ga kër bu ñu nemmeekoo nag ay at a ngi nii depuis 2013 ñu tëjoon ñu fàttali rek maire bi di Khalifa Sall amoon yéene liggéey boobule marché ba tax na rek jamono ñuy wax ak yéen information boobee ñoo ngi ko jëlee ci ki nga xam ne mooy maire plateau Alioune Ndoye moom nee na nag dinañu tàmbale d'ici ñaari semaines yi di ñëw euh, li nga xam ne mooy liggéeyu marché boobu dina nar jël nag ñaari at ci kanam koppar bi ci nar def nag toll si juróom-ñaari milliards suñu sukkandikoo ci Alioune Ndoye nag ñuy fàttali rek maire de Dakar bëggoon na toxal li nga xam ne nag mooy boobule marché ak euh, marché potentiel ba tax na rek moom moo ngi sàkkul li nga xam ne mooy décision boobee du am ginnaaw nag moom bu mu jàppee ab ñeenti milliards milliards bu ñu naroon def ab lépp ci benn prêt bancaire bu ñu naroon def pour def yooyu la liggéey euh, kii di Aliou moo xam ne yooyu information ginnaaw bu mu jàkkaarloo woon ak ñi nga xam ne nag ñooy taskatu xibaar yi ñuy di rek euh, ay bés yi di ñëw ñu tàmbalee liggéeyu marché Sandaga ñu dem fële ci euh, Louga jëli kawteef bu ñu nemmeeku ci euh, ñaari sulaar yu jàppante woon ginnaaw bu ñu mandee nag ñu gis euh, boobule jàmmaaxloo mu jur ab jéeya ginnaaw nag bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne nag ñoo teewe woon boobule jàmmaaxloo ñaari sulaar nag jot nañ fa laalante dimanche bu ñu génn ba tax na rek génn ki jot na fa am ay gaañu gaañu yu métti jamono yi ñuy wax ak yéen di nag police Louga jotoon na teg loxo ñu jot ne moom moo def li ni mel ba jot nañ ko woon placé sous euh, garde à vue bërki démb nag lañ ko jot a defeere ba tax na rek lu ci munti am ci coowul boobu amee fële ci Louga dinañ leen ko indi suñu yeneen jotaayu xibaar leneen la ñuy indi tamit bokk na trafiquant de bois bu ñu nemmeeku démb fële ci euh, wàllum Casamance ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne nag ñoom ñuy yëngatu ci wàllum eaux et forêt foofu si julluulu gis nañu nag ab information bu ñu jëlee ci ab anonyme euh, bu ñu wàccee nag fi nga xam ne foofu lañ leen wax gis nañu nag ki nga xam ne nag mooy chef sous secteur forestier moom nag euh, jot na fa fekk ab ñaari camion yi nga xam ne immatriculation gambienne lañ fa fekk mais jotuñu fa nag euh, fekk ñi nga xam ne nag ñooy ko def ñaawteef boobu ba tax na rek euh, jamono yi laaj bu ñuy samp mooy diggante Sénégal Gambie réew bi nga xam ne nag dañoo jot ne ri tax na waaye dañoo jot ne ñi nga xam ne nag ñooy def boobu le trafiquant ci réewum Gambie la ñuy jógee ñuy samp laaj rek li nga xam ne nag mooy taxawaayu njiitu réew mi ci li nga xam ne nag mooy boobu la décision war a jël si digganteem suñu région wu Gambie internet Feeling Dakar loolu nag ñoo ngi ko nemmeeku woon euh, fële ci euh, Casamance démb bu 9h jotee euh, si la ñuy def boobu intervention ñu dem nag fële ci ministère de la santé et de l' action sociale jëli point Covid 19 bés bi sur 1442 tests réalisés ñoo ñëwee am mbas bi di Covid 19 24 contacts la ñu nemmeeku yi ay transmission communautaire la démb 29 patients jot nañu wér ba ñibbi nañu seen heures quatre cas graves la ñu nemmeeku si jeudi bi nag ñaari bakkan rotee ci mbas bi di Covid 19 41 293 96 jot nañ leen déclaré positif 39 932 jot nañu wër ci mbas bi di Covid 19 1138 jot nañ si ñàkk seen euh, bakkan 225 jamono yi ñuy wax ak yéen ñoom ñoo nekk sous traitement car 440 837 jot nañu bénéficié wu ci li nga xam ne mooy dose vaccin yu ñu jagleel euh, réewum Sénégal. internet Feeling ñu leen di fàttali rek li nga xam ne mooy Covid 19 di mbas bi mu ci réew bi ñuy sàlloo mesure barrière li nga xam ne waa ministère de la santé et de l' action sociale jagleel nañ ko. ñu jeexalee flash bi tàggat yaram dooree nag làmb ji nga xam ne nag dina am si diggante Balla Gaye 2 ak Bombardier ñu gis nag jamono yi ki nga xam ne nag moo taxaw taxawaayu Tyson maanaam ki nga xam ne nag moom la ñu jàppee businessman si sport si li nga xam ne nag mooy ci làmb ji ñu gis la Lion de Guédiawaye nar a bëri ki nga xam ne mooy Bombardier nar a bëri ak ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux ak Boy Niang jamono yi ñuy wax ak yéen nag ab entraînement bu intense la am fële ci réewum France jëmale ci wàllum internet Feeling Dakar ñuy xaarandi rek ki nga xam ne nag mooy Balla Gaye 2 ñibbisam fii ci euh, réew mi ginnaaw bu mu amee ay euh, semaine fële ci réewum France ñu jeexalee tàggat yaram bi li nga xam ne nag mooy euh, football wax ci finale Ligue des bu nar a am samedi si diggante Manchester City ak ki nga xam ne nag mooy Chelsea ñuy njot ndax ki nga xam ne mooy góolu Chelsea ak Mahrez te yëngatu fële ci Manchester suñu sàgganu rek ñoom ñaar nag dina dinañu bokk ci ñi nga xam ne ñoom lañuy nominé ci ballon d'or africain internet Feeling Dakar dinañ leen toppal nag boobu lay xew-xew lu ci mënti am ñu indi leen ko si yeneen jotaayu xibaar leneen lu ñuy indi maanaam match bi noroon am si diggante frappe ak waa police mais nag match boobu ju mujjee am ginnaaw bi police forfait si digganteeg euh, frappe ak moom ba tax na rek euh, frappe nag dina amal boobu leen match euh, si diggante seen diggante ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa frappe internet Feeling Dakar lii laa leen indiloon ci ay xibaar ñu joxante dig daje ba beneen yoon.